رحمة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بهذه الأمداء وبشر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين عتاب بالمملك الأوتان باغنا سلي من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبريم المالك الأزمان فتى من سماته الفتاة للمصطفى سماته المفتاح بان لكل من لو تراه أن امتداد منتقى فلا وآيات ومدى وكتب ما أوى إليه ذو البرايا والزمن نبينا الماء ما كلفا حنا كما قبل منا متزن محمد صلى عليه القدم تسر مني دوام القدم أحمدنا المختار كفى الضرر المؤمن ولا leen siyaar tey jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoy Seydina Aliyun Thiam di sunu jëwriñ di sunu mbokk taalibe di sunu magub daara nekkoon ci daara ja kër Serigne Ba doon fa it royuwaay di jëmm joo xamante ni nii Serigne bi def na ci moom lu bari moom it mu doonoon jàmbaar te sëñ bi daan ko royloo ñu baree baree bari looli ñun ñi fi teew yëpp xam nañ njàmbaaruk Seydina Alioune di jaarale nuyoo bi ci loxoom mu jëm ci sunu baay bi nga xam ne nii tey moo waral ñu daje fii di kenn ci ñun di Serigne Cheikh Thiam xaritub boroomam te sëriñ Cheikh moomu ñun ëmpalowuñ ko xam nañ jëmmam ji bu baax amaana moom mën naa bañ a xam suñu jëmm yi waaye nag day mel ni li ñuy wax naan geenu golo loo ci laal rek borom yëg ko waaye moom daa jàpp koo xam te ni day suñ lépp muy sëriñ Khadim Touré moom sëriñ Salihu Touré mi nga xam ne nii mooy suñ lépp di suñu bunt ci Serigne Salihu Touré di suñu sëriñ jàpp googu nga xam ne jàpp na ko te jàpp googu waxtu wu nekk Serigne bi di toog ci mbooloo mi di fësal yoo xamante ni nii amaana sax ay mbiru biir la yuy xew seen diggante ñoom ñaar di ñu seedeel taxawaayam kon ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaar di ko joxe cant mbooloo mi ndax amel nañ ko ak cant ndax ki ñu amul lu dul moom muy Serigne Khadim ture moom la ñu jàppal kon day yell ci ñu nit ñu ñu sant ko ndax sëriñ Khadim lu ko waaye defal rek ñun la ko defal kon ñu ngi koy sant bu baax te lu taxawaay bi. di ko ndokkeel ci bis bi ca mu jàpp ko lool ndax ba ñuy wax ci wàllu sayir daal yónnee ci man saa ne waxtu nekk jibi géey wala kenn ku mu doon ci wàllu baatin bi ba mu ñëweet moom laa njëkk a waxal sama borom nee na ci jëm ci sëñ Saliou Mbacké ba ni ñee jaaxle ci siit ci loolu it ca poste courant ba la ko dëggale xew bu ñu fa doon def mhm. alsaan mi daf may wax ne keroog laa la bàyyi xel ba tey mhm. sëñ Saliou Touré yëkkatee micro bi wax mhm. ndax ku ne xam na ne Serigne Saliou mooy sëñ Touba waaw ku ne xam na Serigne Saliou mooy sëñ Touba kii ci kenn ci njabootam la mooy sëñ Mourtala Touré sëñ Saliou dëkk bi ñu bari dañoo defoon ni keneen la ndax bunt kër yi boo gis seen foon seen nit ñaa ngi génn mboolum kenn mosu koo gis te dafa dajale laq ngërëm yépp kon bis bii moo waral ñiy sant boromam ñu ne dañ ciy sargala man Serigne Saliou Touré ak El Hadj Madiagne Niang mi nga xam ne ni moo ko daan jiite mm-hmm. te ñoom ñaar ñu ànd làqu mm-hmm. ndax ñoom ñaar dañuy kenn ndax alaaji Madiagne mës nay wax sëñ Xaadim Lo Gaydel nang oto laa bëgg ma ne ko sa mbir de nekkul ci sëñ Xaadim Lo Gaydel si sëñ Saliou la nekk ma ànd ak moom yóbbu su suukar score ba mu demee sëñ Saliou Touré ñaan mu fàttali ko oto ba sëñ Saliou daggaat taxaw ñaan gi ni teg ba yàgg mun mun ma jàkk ni ma wut fexeel ma moto ci biir weeru koor yi ñaar fukkan yaak juróom ñaar ma fatu génn toog tuuti ñun ma oto bi bu ko fanaanoo jox ko alaaji ma jaañ nang kon sëñ Saliou Touré mbiram dafa làqoog suñu borom ndax léppam sëriñ tubaa la sëriñ tubaa dafa sey ci suñu borom kon nag li ñuy def di ñaanal njaboot gi yàlla sa borom guddal fan yu wéral cëriñ fu sëñ Saliou Touré nekkoon taxawoon te xamal nañ met juróom-ñaari at yi it ngi ànd ak yéen keroog bañ ko dencee ba ñëwee fii dañ ma xamal ne juróom-ñaari at yëpp mi ngi mi ngi taxaw mi ngi ànd ak yéen ndax nitu yàlla mën naa dem ci jëmm ji waaye fekk demul mm-hmm. loolu lañ leen di seereel ci njaboot gi wala gi nga xam ne ni ñuy jàppee alim karame mii moom ci loxol sëñ Saliou Touré laa ko teg mu def ci moom li nga xam ne lépp ba ba fu mu ne man fa man faa nekk ñoom ñi ñu ñu ñu toq toqatal li sëñ Saliou Touré def ci moom ah ñu jàpp ko def ko defuñu ko defuñu ko maanaam taalibe mais doomu doomu doomu doomu bàyyi lañ ko def doomu bàyyi lañ ko def man mii ñu jàppee ma seen waajur ndax na ma meloon ak moom kon nag awuma lu dul delloo leen sama bopp rek lu ngeen bëgg suba ba ngoon ci man man de maa ngi bu doon benn la sax ma jox naa leen sëñ bi kon fu ngeen nekk guddi ak bëccëg maa nga foofu loolu moom c'est bu ngeen xam ko bis ngi tey lu ngeen nekk maa nga ci lu ngeen nekkul nekkuma ci waaw xaadim nag a ah, dañ lay delloo njukkal Euh, ndax nit ki boo xamul na koy def nam la def a tax te nim ma def mooy bëgg goo xam ne nii bëgg na ma ko bëgg goo xam ne nii yéeme na ndax ali Aliou Thiam mi damay dégg kat mu naan waa Sénégal ñëpp samay sëriñ lañ ah waaye sëñ Xaadim sama xarit la loolu moom may dégg mu koy wax saa su ne kon loolu ak mbëggeel la kon nag maa ngi yemale foofu wax ji waaye ci di leen dalal jàmm te bis bii nga xam ni ñoo ko bokk lépp lu ci nekk rek yàlla sama yaatal ko ba ñëpp ñëpp ñëpp mën cee jot yàlla taxaw ñi nga xam ne ñii mooy tuut tànk yi yàlla sama borom guddal fan yi wéral cër yi lii ngeen di sakku yàlla jox leen ci lu kawe seen jot waaw ndax tër biiw sëñ naar jenn dafa am sama wax lu ma xam ne nii mun ma tër biiw ak jàng al jàng jàng jàng ca daara yi nii xam nga nan la mel ma am nen ci taatu ron ni ron gi sote nen bi ki tër bi noonu la sute ki ja ki toog jàng waaye nag ci ki mat ci ki mata tër biw te nii Sëñ Saaliw daa mata tër sa man Sëñ Saaliw daa mat lépp kii xam na ci dara ndax jëm bi kii représentant Sëñ Saaliw Mbàkke la mooy sëñ Dan Gueye moo xam ne Sëñ Saaliw Touré bu baax ndax ñoo bokk nekk ca daal ndax kii kon li ko indi li ko indi li ko moom moo ñeen bokk kon li ko indi seere moo ko indi tey mi ngi nii seere sëñ Saliou moo ko indi ndax yëgul woon ni bi muy ñëw yëgante leen daa ñëwoon doon seer rek taxante kon seere moo ko fi indi tey moo ko sëñ Saliou benn la waaw jërë ngeen jëf yal na yàlla sàmbaram doon li jàmm doon li xewal eh, yàlla bàyyi leen fi eh, fanqal leen lépp luy musiba lépp musiba lépp luy ndox waaw yàlla yeggale seen mébéb ci liggéey bi ñuy fas yéen liggéey seen Tuubaa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. di bég lool ci jataay bi waaye di bég lool ci bés bi ndax bés la boo xamante ni génnul daray suñ borom subhaanahu wa taala suñ mu ture Cheikh Mbacke de danoo jaxasoo xañ na sama mbubb na lool waaye moom dama ñëw mu defar ma mu dolli maa defar li may faral di wax ku jóge Thiès. yaa ma njëkk na xam Cheikh Mbacke ca at ya mu ne Thiès wàllu commerce yaakaar naa ñi dëkkan Thiès fa ci loolu lañ ko xaman waaye bi suñu borom ñëwee léegi ci moom lii bi ko suñu borom defee ci moom mu nekk Touba moom bari na loo xam ne moom moom mën naa leen ko cee wax ndax taxoo nanu lool ndax guddeeg bëccëg maa ngi fi moom. la ko sababit du sama ñàkk fulla du sama ñàkk fayda ndax ba may tuut tànk lu tuuti bu nit masaa ñëw ñi may àndal boo ma nan dem ci béréb kaanu dem man la fu may dem nga ne déet nan dem la man la man fu may dem daa koy xam bu ma wanee dem ne bu a dem doo ma yóbbu kon man du ma xob bu ñuy xëcc waaye kii dama ànd ak moom benn at ñaari at ñetti at ba fii may wax ak yow nii jamono bu ma ñëwee yàlla kese laa fekk ci moom lu jafe ma di ko dund ak moom nuy tëju fii ma moom ak njabootam dem ba xam suñu diggante ki nga xam ne moo di taawam di Elas bari na loo xam ne tey bu ko bëggee wax ci baayam ci man la koy jaar ki soog a ñëw ki ne mbow mee di am ne ci suuf bari na loo xam ne léeg-léeg lu bare bari ci man lay jaar ni ma ne a ah Cheikh Mbacke kon jaxasoo nañu waaye yàlla kese la ma won li ma koy faral di wax ñi ko ñii ëpp ñi ëpp di ñëw ci yow ñi ci ëpp ñi ma xam boromi baatin lañ ndax dëgg dëgg dëgg dëgg ko mul baatin mënoo jaxasoo ak moom parce que nituk yàlla ku wér a wér wér lu ma lu ma xam la ndax jikko yi li ñuy taamu yonent bi sallallahu alayhi la mu doon lañ doon tagg ci doomu aadama muy jikko ju rafet moo ne ci moom xoolul dara dara dara lu dul jóge ci suñu borom subhaanahu wa li nga xamante ni ci laa ko mën a tënke xaalis li muy neex neex neex léeg-léeg nu fatu nit woo ko wax ko xaalis mu xool digg ni ko ma may ma tuuti mu xool ko ni ko déedéet bis bi lay bari lu ma fekke nit woo ko bëgg am lu mu jënd indi mu ne ko amuñu ci ndigal mu ne nu may def léeg-léeg kooko woo ma ne ma man damaa woo Baye Cheikh ba gën a jënd nangam waaye nee na mu ci digal man kon da cee mul digal kon ku mu ku ku ku neex rek indi li ci wër a dem du ci dem li ci war a dem nag dina ci dem kon loolu yàlla yi kese la. jamono bu ne nag cant gi la mu waxan daaw yaakaar naa sëñ xaarim daaw comme ni ngeen ko defee booba saal bee la nu nekk ak njabootam daf leen a wax ne bu deman ba cant gi gisatu leen ma cant gi gisatu leen ma ngeen war koo def nar koo bañ a def da ngeen jaay kër gi def ko ndax suñu borom ma gën a lépp. te lépp lu ma sunu borom sant amul ko ma jaral loole dara dara dara yàqal ma ko kon loolu mooy jëf te sunu borom tax sëriñam toog na fi léegi comme nii nu waxee lan neen ci biir néeg mi fatu mu am kàddu yu mu jàllale jàllalewaat ko ca baas ba muy sëñ xaas kere ba nu demee jëkkee ànd dem ci màggal sëñ seex xaas sëñ seex ci boppam sëñ xaas dani sëñ seex bu màggal gi masaan ñëw a fekk seex mbàkk ñëwul day mel ni kenn ñëwul ci màggal gi ana seex caam ana seex caam ana seex caam bu yegsee mu ne waaw koy ana Cheikh Thiam nee na mbooloo mi toog bu ñu gisee Cheikh Thiam bu nuyoo ñoom ñi doon da leen di yéem sax mu ne waaw koy bu dikkee mun ko waaw koy bisimilah yegsi nga li app ci njabootu sëñ Cheikh Xaas jamono bu ne ngoon la ñuy ñëw délégation waaye dañ koy seere ngir ñoom ñu ni bu bàyyi Cheikh Moussa gulagu ñëw nun day mel ni màggal gi tàmbaleegul njabootu sëñ Cheikh Xaas ndax bu yegsee malat bi mu yor noonu ci la ñuy soog a xam ne màggal gi tàmbale na bi yàlla moom nag kon yàlla sant gi muy sant sunu borom mu mu mu néew ci doole sunu borom xamal ko ni ko ànd kook say bokk ànd kook mbokki taaliba yi ànd kook jullit yàlla yi kon sëñ Cheikh bi nga xamante ni moom lay wax ñu baree bari di ko dégg mu jaaxal leen am na ñoo xam ne cant gi jaaxal na leen mën leen nag sant sunu borom la def ñu baree bari ma dee sant yàlla lay def ci ndigal lu ko sunu borom dox ni ko sant ma sant gu wér ànd say bokk ak jullit yàlla yi sëñ Xaadim sa waajur la nga xamante ni moom la waxan ci moom bu demee ba nga xamante ne sëñ Saaliwu Mbàkke de xamal nañ ko ci moom loo xamante ni sa waajur lañ ko joxoñ kon lamu ni sëñ Saaliwu Mbàkke mooy sëriñ Touba loola yaakaar naa jamono bu ne ngeen yéen ngi dégg loola mu gën a leer sëñ Saaliwu ture kenn ku ko xamul dégg nga ko ku xamul sëñ Saaliwu Touré dégg nga ko ci li nga xamante ne suñu borom defal na ko ko muy may goo xam suñu borom may na ko ko gone gi mujj juddu sax ñaare bu ab kii ak dégg-déggam dina dégg ñu naan sëñ Saaliwu Touré Thiès kon am na la suñu borom def ca moom kon ba mu ñëwee di ca waxtaan ak moom fa mu ko teg ba mu wëlbati ko jox ko doomam ji Seydina mu karamu ngeen teg ko foo xamante ne maanaam ci xam lu ko sëñ wu Ture defoon la kon alhamdulilahi rabbil alamina dara lu dul yàlla ñoru ko mas na maa nungoo ci soxna Xadi Baara muy doomi sëñ euh, Baara Mbàkke sëñ Baara da lu mu jur wàll yi la muy góor muy jigéen kere bi mu yegsee ci cant gi ne bele lañu wàccee oto bi buñ ko wàccee mu lëng ko ba mu yegg ci lal bi bi mu toogee moom soxna Xadi Baara moom moo wax ni cant gi génnul dara yàlla yàlla kese la kero bari nañu daanu feeb jël bu ma masaa yónni ci moom bu ma yegsee bu ma koy joxo carte visite mu ne ma day ma Seex Mbàkke xaritu boromam rek lam may joxit bu ma ko lemee na mu ko lemee ma ko defee sa poos bu ma dikkee noonu laa koy leme ni ko soxna Xadi demoon nii nit ki sama ne waaw ah, yow de kala yónni soxna Xadi bëgg na laa dimbali xam nga ko man ko am na xaw ma ko de waaye ka ma yebal ci moom xam na ko kon Cheikh mbake xaritu borom moom boobu muy wax kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom guddalu fanam wéral cëram seen waajur woo ci sëñ Saliou Touré ba mu bëgg na yeggale ak yéen suñu borom mottali ko ci yéen ak mboolem taalibe yi mbooloo mi yéen ñi fi toog Cheikh Mbacke sant na leen gërëm na leen bis bii de amul lu ko am ëpp doole ci moom képp ku ko jàpp ci bii la lay gis képp koo xam ne am nga ci moom yëg bu la gisee ci bis bi xam na ne am nga boole nga ko sa amul dara dara dara loo xamante ni génn na ko bis bi lu ko gënal bis bi kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci turam ci ak bëggam doomu aadama ak fonk doomu aadamam dinaa leen xamal leen ki indi fukki junni ak ki indi un million ci man mi ne fi moom di la fi jàllale nit ñoom la yemale nit dina dugg di indi nit dina dugg di mu jox la man nag xameelu lu ko kenn ndax mooy mooy mooy bëgg-bëggam am na ku ma ko wax man ko ah moom mi mooy nga xam ne kan maa koy recevoir nit xàmmeewul kuy indi ak kuy indi baa koy xàmmeel kon loolu mu jikko la joo xam ni sun ca suñu borom la bawoo yal na ko yàlla guddal fanam wéral cëram barke Cheikhuna Ahmadul Khadim barke Cheikh Massamba Diop Sam sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ko Touba Tawfiq sëñ Mat Seck jur sëñ Abdou Seck jox ko sëriñ Saliou muy lu tuut sëñ Saliou yar ko keroog ba mu nekkee ba mu eh, siyaarije sëñ Saliou nekk sëñ Mat Seck dàqi bi mu ñëwee sëñ bi da ko laaj jëmmi quartier bi mu ne ko Touba Tawféex sëñ Saliou ko Tawféexul Haadi fii mooy Touba Tawféexul Haadi sëñ da danaan jóge Touba ñëw ba tollook station bi di Orix ànd ak góor a jël tànkam dox ba ca kàdd ga dellu siwaat noonu la sëñ Saliou daan def tàkkusaan yu bari da ko daan de am ku ko fi kar ma ne ko lii de boo ma ko bàyyitoo duutuma fi du ma fi dikk man naa jaar ca tur waag li ndax lépp dañu fee fekk kon nag quartier bu mel nii ay jullit nekk ay ay taalibey seexul xadim nekk fi ku fi def bës bu tool nii man maay délégué ci quartier bi maay santeel ñëpp li ko dalee ci chef de village bi ba cek ka gën di suuf maa ngi yëkkati seen kàddu cant di leen ko jéem ndax kenn daa amul bés bu dul bésub lislaam sant nag sunu boroom day mel ni nit musu koo nag a euh, créer kon su fekkee ni yàlla defal na la nga am tawféexu joo boobu xalaat ba di ko def di ko dundali suñu quartier bi ñun ñëpp amel nañ la ak cant kon ñu ngi lay sant ci tuuru karce bépp ñu ngi lay sant ci turu dëkkandoo yëpp di sant sëriñ bii di sëriñ xaadim teewal fi njabootu sëriñ Saliou ture dëgg seen diggante diggante Thiès ak sosoon kër gi mësta ñëw teg tànkam ci kër gi te waaxul ba sama kër ne ma sa diggante ak sëriñ Saliou ture day mooy tax du ma ñëw fi ba jógee fi te ñëwuma sa kër gi siyaare wax ma diggante ak sëriñ Saliou Touré xam bu baax sama diggante ak sëriñ Saliou ndax sëñ Saliou Touré dañoo bokk sëriñ Saliou waaye deret dañoo boole ndax wenn maam dañ koo bokk muy Mor Mbaye Dieye Diagne ndeyam xuma la sant sama ndey sant xuma li may jëfandikoo man sëñ Saliou moo ma ko jox ne ma doomi soxna du jàllale lii maa la jox te téye ko te yemale ko sa bopp kooku nun amoon nanu jaxasoo amoon nanu diggante kon sëñ Xaadim lay sant di la ñaanal ci barke mu mag ñi e la maanaam barke ba mu amoon ca Thiès ak turam amoon ca Thiès yal la leen ko yàlla jagleel ci barke Serigne Saliou di sant ñëpp rek sëñ Cheikh na la biir na ñoo ngi lay sant di la ñaanal bis bi nga gën koo man te noo ngi ñaan te it rafet nañ ci njoot at mu ñëw maanaam gàcceel ma jàll ci barkeb sëñ Saliou jërë ngeen jëf. ni ko waxee moom nekkoon sa wëllëra baay mu seen Saliou ture nga ñëw teew si jotaay bi si bis bii tey kon dañ la koy seereel ñun ñu ay mbokkam dañ la koy seereel kon te xam ne lii nii jëf ju yàgg la ci moom it te bëgg na mbokk lool. maanaam day day ñaw rek moom day day ñaw rek waaye du mës a waaw moom moom loolu suñu borom jagleel moom day ñaw rek lépp lu mu gis lu baax loo xam ne rek day da da da koy da koy da koy lijjanti fu mu gis lu yàqu-yàqu nar nar a nekk mu jëm koo def mu defar ko kon nag ñi ko ci sant bu baax di koy gërëm di wax ne bis bii nag ñu ngi si soog a teew tey waaye daa mel tey la ko suñu borom dogaloon nag waaye am na taw fi bu baax yàlla nañ si dajal ngërëm suñu borom yàlla nañ si dajal ngërëm suñ Tuubaa waaw ñu leen di sant bu baax di leen gërëm